jaamu sëriñ tubaa moo leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah di ko tàmbalee ci njabootuk sëriñ tubaa gi soxna maam Fatim Mbàkke bintu Seex Muhammadal Faadal ak sang yu tedd yi fi jóge léegi ak sang bi nekk ci sama wet di jéggulu ci jataay bi te di leen ko jéggulu di ko jéggulu ci taalibe yi di ko jéggulu waale saa bopp ndax jataay bii du murit murit moom genn basan benn togg damay wax nit ñi ne leen murit lu mu bari bari ñaari sëriñ tubaa mënu fa am ñetti sëriñ Tuubaa mënu faam benn sëriñ tubaa rekk moo fa mën a am kan moo fay sëriñ tubaa ka fa gën a jege sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul damay wax bu fekkee ay gor lan yu bëgg a roy sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul xool fam teg muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nu di fa jéem a teg sëriñ Touba kon war na noo xoolaat fi nu war a teg Serigne Touba bu baax a baax a baax ndax moom Serigne Touba de moom mu tegoon muhammadu rasulullahi kenn tegu ko fa dama ci indi rek ñetti yëf nekk na fi barab réer nit ñi kenn gisu ko nim daa def ñu di ko wër ak di ko yëddu fam toogoon ca koñu kër ga am ñu ne ci bitti kër ga ay xale benn xale for ak weñ gi ñuy wax rasool daal dina moroom mi for naag rasool waaye sëriñ tubaab bi mu déggee loolu ci ay noppam ci la daanu ba génn ci biti daal na nañ ma seetal fere yi tollu barab sàngam waaye lañ for buñ ko fa bàyyi bi ñu indee xale yi def ne wax leen lu ngeen bëgg ma jox leen ko te ngeen jox ma li ngeen for bi muy neexal ko nii ba jot ci weñ gi bi mu tàmbalee bi mu ci sottee sikki si ba tàmbali ci barkeelu ci mbubam mi bu du woon xam ngoo xam Serigne Touba bu la joxee mbubb ma doo ko soxla ndax xomaag gi nekk na fi barab di tagg Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci benn néeg boo ko joxee dërëm day wax tegal foofu du ko laal boo indee kayitu xaalis day wax tegal foofu du ko laal day mujj kayit yi ay naaf lay def paset di ay jàll mu gas ba mu xóot mu suur wala mu jox tubaab yi walla naar yi am na bi bis muy tagg muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg am benn porox ndollu ci néeg bi di naawal kayit gi ci lay soog a def bërët di def fob kayit gi nëq di def nóox nóox ci ban néeg bi am ku fa nekk daldi muuñ mu ne ko looy muuñ mu ne ko ah Mbàkke wuuteeg xalaat ci lii rek Sëriñ Tuubaa daldi muuñ ne ko na noo ci yem xalaat ndax lu ci waaye am lu mu bari bari fàtte buntu rek la koy doyee te man de bunt bii bëgg a yàq li may liggéeyal Muhammadu Rasulullahi benn buntu gënu maa ñor ci fat ko koo koy seen maam fam teg Muhammadu Rasulullahi rey na la na ko waral añ bi ko yàlla jox rek moo ko waral fam teg yàlla ak yonent bi dara waralu ko lu li ko yàlla defal ak yonent bi defal na ko loo xam ne mësu koo defal ku yàlla bind ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ne sama liggéey bi weesu na ñu ne ko fu mu la weesu mu ne dem na ba kuy ku dib jullit sa àjjana da ngi ci sama loxo liggéeyal naa saa bopp àdduna liggéeyal naa ko ñi ma gëm ñu ne ko a jërëjëf sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na yàlla fay na ma àdduna faye na ma alaaxira ñu ne ko aha mu ne saa borom lam ca teg nag ci coobarey boppam nee na saab jox ñu rus na koo bank àdduna ba alaaxira nee na barab bu ma toogit ba dem man sëñ Bamba mu mu doonte garab gu daanu la ba def ab ëkk jana nga ñëw toog ca ëkk ba di ma fa nekk doo fa def ab minute te fekkuma la fa defal la fa la nga bëgg nee na yàlla nee na du tas yaakaar yoo xam ne ci man lañ ko wékk koo koy sëriñ Tuubaa looloo tax mu teg fi mu teg Muhammadu Rasulullah waaw nun nag fu nu war a teg sëriñ Tuubaa xooleen suñ añi kër yi ni mu reyee boo dajale woon seex yëpp si la jaxate faal daraame sant wu ne Serigne Touba defar na ca mag a liggéeyoon tuuti mu faye ko añu kër maam diw mag ma di ci añ ba nekkatu fi bàyyi fa mag mu cay añ ba nekkatu fi muy dox ba tàbbi ci loxol gone yu mel ne noonu boo nu dajale woon nun seex yépp wut sawar a teg fi suñu wet wut ay soyu yu tolloog yooyu tàngal ko ba mu tàng jër ñu nuy waat loo moo du kalaakaay waat su fekkee añ bu rëy bii ngay añee nga xam ne koo ci seen ci nun muy dem nga ne ko taxawal mu taxaw nga ne ko loo rafet du ko xam man de saa yoo ma séenee may dem amut lu may wuti damaa juddu rek fekk lu sëriñ lu nit di lu nit di xeeti teraanga sëriñ fàggul ma ko sama kër maam te maag ñëpp waaye añ boobu li muy rëy rëy rëy boo nu dajale woon dinu waat loo fot fab sawara teg fi sunu wet ne nu ndax ak ndax ak ju ngeen jox yàlla moo fi bàyyi añ bi kaay waat kubaat lakk koo ci ne ndax àq joo jox sëriñ Touba sa digg ak moom moo fi bàyyi añub kër maam diw bi kubaat lakk koo ne ko ndax sa jaamu yàlla gu rafet gu ëppale gaa yi la topp moo fi bàyyi añub kër maam diw bi kubaat lakk ñi mel na man sax def nañ lu yàq añu kër yi Serigne Touba yor ngoram gi nëbbu ci suñ ngoreedi gi yor matam gi nëbb ci suñ manque gi yor mbaaxam gi nëbb ci suñ doywaat gi kër gu ne la fa woon mu di ko dolli guddi di ko dolli bëccëg lu bañ a yemale njabootu sëriñ Tuubaa gi ku yàlla bind Modou Kara daal lu waaye bëgg jëlal ku bëgguk sëriñ jëlal ku bëgguk seex jëlal man daal jaamu sëriñ Tuubaa rek laa bëgg a doon ndax lim ma defal loolu rek laa ko mën a fayee bu loolu jàllee nag ku baax ku tedd kii nga xam ne ma am bis bu tedd bi tudde ko ku tedd woo ñu tedd ñu ñëw lu munta am ci Serigne Touba amut la na ko waral ñaar yi fa ko waral bëgg na sëriñ Touba lool te am na pas-pas te foofu la yëf sëriñ ne Serigne Touba dafa wax sëñ Malick Ndiaye ne ko dajaleel fere yi ginnaaw tisbaar ci penc mi ndax dama leen a soxla sëñ Malick Ndiaye daal di wax ne ku baax ku tedd ki nee na ginnaaw tisbaar dafa noo soxla nan génn ci bitti ñëw ne ko Mbàkke wax naa li ma waxoon mu ne ko dellul mu delluwaat waxaat ko ne ko wax naa li ma waxoon mu ne ko dellul maanaam important bi sëriñ bi jox yéene bi tax ñépp a génn sëriñ Tuubaa nag bu daa génne gaa yi ak a bari teraanga garab yi garab yépp satala yi warga wi kafe yi suukaru tëlsi yépp day génn ay muquraas booba moo xew ñu ngi teg satala yi ci muquraas yi mu tiim satala yi bi mu tolloo ci bax la Serigne Touba génn xaadim rasul ne tëll génn bu nar ta yàgg fi banam rek nii lay toogee daal di capp hmm. daal di wonk wonkam yooyu mali mu ne ko mbàkke mu ne ko ndax fere yi teew nañ mu ne ko mbàkke ñi ëpp dee fi mu ne ko maalik laajal ma fere yi ndax bëgg nañ ma waaye ba sëñ Malick Jaay waxee na suñu yaakaar yi tey tey ak ëllëg xaadim rasool mooy laaj ba xam bëgg nañ ko wala déet kenn mënta tontu Serigne Touba yuuxu yi dafa jib satala yu baax yépp dañ koo jël naan ku baax ku tedd ki nee na mooy laaj ndax bëgg nañ ko wala bëggunu ko satala yu baax yépp gaa yi dañ koo jël naan laaj bi dafa rëy ci ñoom attanuñ ko bi Serigne Touba di laaj ndax bëgg nañ ko wala bëgguñ satala yu baax yépp gaa yi dañ koo jël naan ñi amul dem ci garab yi di ko dañ yuuxu yi jib mu ne Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko nañ dal te tontu ma ci li ma leen di laaj ndax daf maa ñor Malick laajal ma fen yi ndax bëgg nañ ma ñu ne ko ah Mbàkke yemalewul laaj lu yàlla ma sa bindee te du la yemaleeg dara ba du nay tukki ñépp wax mu ne Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko waxal fere yi na leen man day bugguma leen ñëpp na xaraw mu delluwaat baa ma ko sëñ Tuubaa ñetti yoon la daa wax waxal fere yi na leen man day bugguma leen. daana Malick waxal fere yi na leen man day bugguma leen ñëpp na cel mu ne ko Malick waxal fere yi na leen sama xol bi dara da cee xajut lu dul yàlla ak rasulullah ah sol waa jooju ne cell ab diir gaa yi kenn waxatul kenn noyeetul mu ne maalik hmm, ndax li ñu wax dëgg la mu ne ko waaw ah, Mbàkke li ñu wax di dëgg la mu ne kon de war nañoo sant yàlla ndax Malick bëgg naa yàlla bëgg yonante bi di leen lëggéeyal ba àdduna lu ma fi soob mën naa ko àllaaxira lu ma fa soob mën naa ko ku ma bëgg a dimbali àdduna man naa ko ku ma bëgg a dimbali àllaaxira mën naa ko waaye li ma mënul man sa Ahmadul Bamba dimbali ku ma bëggul waxal fere yi na ku ne mbëggeelam nu mu toll ci man ak pas-pasam nag su ma koy dimbali na la ni ma lay tollu moo tax mu mel nii boroom daaru nee na pas-pas man na loo xam ne wilaaya du ko man wala su ko manee du ko sañ gis nga boo amee wilaaya te amoo pas-pas léeg-léeg nga def loo xam ne yàlla da lay àddu xoolal laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin ni mu baree ci alxuraan te ku am mayu yàlla moo ko jëfandiku rek yàlla gëdd ko ba nëgg ni mi ngi tuub xamut yàlla jégal na ko mu déet waaye xoolal bi Serigne baa demee ci géej gi dénk Ceerno Ibrahima Faati njaboot bi Cheikh Mouhamadul Fadal ci ndeyjooram seex Mouhamadul Moustapha ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ci ndeyjooram Cheikh Mouhamadul Fadal ci càmmooñam ñaan tefule daal ne dénk naa leen yàlla ak yonante bi ak seen baay Ceerno Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne njaboot gaa ngoog sama njabootu bopp gii ak ñi ma fekk si te yàlla tax defal ma ci ñoom yett sàkkul ma leen xam-xam yaral ma leen jàngal ma leen liggéey lu ci nar a manqué na nekk xam-xam bi ndax Ceerno nit dana ànd ko xam-xamam yelwaani waaye kenn du ànd ak sab liggéey yelwaani ne wër nañu woon leen ginnaaw dem bàyyi fi Ceerno mu metti lool kër borom Touba gi ginnaaw sëñ tubaa weer day am cin du tàkk ci kër gi weer cin du tàkk ci kër gi bu ñu xiifee ba xiif ceerno day génn di leen waar ci sëñ Touba ak yàlla ba ñu regg ñu dem tëdd boo liggéey bu añ jotee loolu la ñuy def bu reer jotee lool la ñuy def am na ku dee seex Ibrahima Faati ne ko sa mbokk mi ñuy wax diwu Mbàkke ci guy nguraa am na sàqum ñett daf koy jégal lépp ko ci ay yël ba ci ceer ceerno yablee daf ne ko nee ko sàq maa ngi fi maywut leblewut sarxewut sàq maa ngi fi waaye nag nee ko mayewut leblewut sarxewut dama koy jaay ci ñett dërëmi gudd su amee ma jaay ko soo mun na ma fi bàyyil sam sàq nee ko na tas daara jooju te dem làqutu ji ndax Sëriñ Tuubaa du si loolu dong nag moo naqari ceerno ci wax ja ba mu dikkee wax ba noppi def na lim njëkk a wax de am na ci sañ-sañ waaye lii mu mujj wax yoonam nekku ci waaye yàlla am na njëgam bañ amee ñetti fan lañ indi ñett dërëmi gudd ceerno jënd ci sàq xam nga lu mu nañ ma ko ñagal yàlla day xool sama pas-pas rek waaye njabootuk Sëriñ Tuubaa gi yàlla du leen rey ci xiif mukk ca cooroon lañ xit sàq mi bojj ko faraas ko faraas sàq mépp seex diwaan nee na dafa barkeel ba li ñor ci mbooy gi képp mën na sàqi fukk jërëjëf ndeysaan mu di saadix waaye ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax nañ ne bi ñu Sëriñ Tuubaa see ci géej gi xiif amatul bi Serigne tubaa ñibbi sa it maanaam dundub Serigne tubaa bépp Ceerno ko yor ñeneen nag daanañ def di yóbbu di fa daje Ceerno waaye Ceerno musta bàyyi ak dundub Serigne Touba bi ku yàlla bind mu des nag mu des nag wopp am ci kër gi Cheikh Mouhamadul Lamine daal di génn àdduna moom te booba boo génn àdduna fi nga génn àdduna fi la ñu lay denc ñu di ko nëbbu Ceerno ba mu yàgg mënuñu ko koo ñàkk wax ñu ne ko ah yow de ku gëm yàlla nga mu ne lu ngeen di bëgg a wax mu ne ko seex Mouhamadul Amin moom si Ahmadul Xadim moo làqu léegi mu ne anamu ñu ne ko mu ngi fii wax nañ ne bi na jiitoo wuti sëñ bi ñu doon dox di ko topp dañ doon daw bi mu dikkee fekk fi ñu ko tëral nii la def loxoom ba ci dënn ba mët Lamin jógal jógal laa sëñ Tuubaa du ma dénk dara ñëw ma di ko laaxat jógal mu ne ñokki duñu lan la ca teg yow yàlla boo naree jëlati kenn ci njabootu Serigne Touba gi jëlal Mouhamadou Awa Balla sama doom wala nga jël Mouhamadul Habib walla nga jël Cheikh aw Balla waaye njabootu sëriñ Touba gi tin ma ci te jël sama njaboot sama njaboot gi la jeex ak sama ndey ak man xoolal ni ko yàlla tine ba nii Serigne tubaa jël si ci géej gi njabootam faatuwut ak sëriñ bi xam nga lu mu ca tega ba mu koy nettaliwaat ci beneen yoon daf ne. na xam moos loolu ma def day defuma ko ci wilaay ci pas-pas laa ko def Sëriñ Tuubaa daal koy tontu ci seen jataay bu gàtt ba woon daaru ne ko may itam de ceerno bàyyi fab sabdar di ko sànni ci géej gi di fekk géej gi di fekk der bi defuma ko ci wilaaya te saa borom lu ma ne soo ko defee mujj waaye naa ko def lu ma ci fekk baax na ci la ma yàlla musal kon kii lu ne mën na ko am ndax ni mu bëggee Sëriñ Tuubaa nekk ak ni mu amee pas-pas wasalaamualeykum wa rahmatullah